ولم يكن له كفوا أحد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi ñuy seetaan seen télévision seen TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu xaq di ñaan suñu borom boole ñu jéggal di nuyu suñu directeur général Hadji Bougane di ko ñaanal moom itam yàlla dolli ko jàppale dolli ko sutura dolli ko ndam defal ko ko defal ko mbooleem jaamu yàlla yépp nuyu suñu techniciens yi ñu nekkal xaaji madaani tafsir maba soxna Anta ak oustaz maxtaar oustaz mohammed lay xanaa rek tafsir euh, sant yàlla bu baax ndokkeel suñu directeur général ndokkeel mboolem ñi liggéey ci tele bi ak rajo bi di sant yàlla subhanahu wa mi nga xam ne may nañu ñu am ñaari at ci sunu liggéeyu télévision muy seen TV muy dajeeg bis bi nga xam ne ci la Serigne Mbacke Soxna Lo génnoon àdduna bis boobu ci la bugaan taamu woon ñaanoon ci ndigal ay kilifaam ñu may ko mu ubbi ci rajo bi ak télé bi tafsir defe naa diggante ñaari at yi mën nañ ne réussitu ñaar fukki at am na ci walla fanweeri at wala téeméeri at ñun ñi daar daara xam nañ ci dara ndax bari na lu nit jàngee ci télé bii te ni def na fanweeri at daara xamu ko fa loolu moom ku ne xam na loolu kon donc anniversaire bii am na solo ndax ki ñu ko méngaleel muy nitu diine ci biir télévision bi mu am émission diine boo xam ne ñu bëri ci lañ xamee seen diine benn imam wax na ma ko démb rek ñoo bokkoon nekk mu ne ma bari na ilimaan yoo xam ne ci yow la ñuy jàngee ci lañ xamee lu bari ci seen diine bari na ñoo xam ni seen ci la ñu mottalee seenug imaam ndax dañ lay suivre am na yoo xam ne leeru loon benn imaam nee na ma xabla salaam ak baada salaam leeru loon beneen imaam ne ma lam yëfoo ci yow laa ko déggee te ñu bari ci yow lañ ko déggee te ay imaam lañu kon donc diggante ñaari at tafsir mabba defe naa ku ci def daara joo xam ne nit jàng na ca madaani loo waroon a mën a def téeméeri at ci àll te du tax nga mën koo xam te ñun ñi ko fii jàngale def na ñu ëpp fanweeri at ci daara te taxuloon ñu xam ko kon donc loola war nañoo njukkal ka def loola muy bugaan ko sant bu baax defe naa le premier juin bii ñu génn bi ngeen nekk tey muy dimanche ci la ñaareelu atu télévision bi mu tombeeg bis bi Serigne Mbacke soxnaloo Lo sëriñam génn àdduna mu natt ci commencé ci liggéeyam defe naa alhamdulilahi rabbil alamin euh, am mën nañ ne barkeel am na barkeel am na parce que ñi intéressé wu ci télé bi bari na fim mu ne kuy def man léegi-léegi nit man maa dul yóbbu nit ci nit léeg léeg nit ñaan ma ne ma waaw doo wax bugaan su ma gàmm gi ñu jëlal ma ko wala doo wax sama conférence bi wala dama bëgg tele bi ñëw parce que kon wane ne na barkel na ndax ku ne bëgg na mu couvrir ko kon lu boobu liggéey ñun ñi ciy wax nag xam nañ dañuy wax parce que dañuy génn dañuy génn Eh, ñëpp a def émission diine alhamdulilah rabbil alamin yal na yàlla mottali ñëpp waaye bi may gis fii ci télévision nga xam ne jeudi lañ koy teg di ko tegaat chaque jour ba jeudi bi dellu siwaat yi nga émission bu jàll fu ma dem xam nga ant luñ ma wooyee émission ba lañ ma wooyee démb fi ñu demoon conférence sangu farata lañ ma doon wooyee sangu si farata waaw naan ma madaani ñii naan la tafsir ma ba nga xam ne sangu farata bi kon mokk na ci ñoom lépp luy seen diine fexe nañ ba xam ko ci diggante ñaari at ñaari at yu gàtt nga xam ci nooy sangoo xam nooy jàppee xam nooy tiimee xam faratey sangu faratey njàpp faratey tiim faratey julli waxtuy julli naka lañuy ñuy jullee soo wàññee nooy def soo dollee nooy def lan mooy yàq julli yii yépp ñu xamal la ko ci ñaari at te nit a nga bitim réew def fa fanweeri at te taxul mu xam li nga xam ci diiru ñaari at yi kon boobu télévision l'islam am na cër bu rëy ci boobu télé parce que jàngale na ci njàngale mu rëy Fabrice Ndiame rek sànq la fi jaar yafenaa naa fi la fekk mu ni ma eh, cey Ibrahima cey Iran pédagogie bu garaaw laay gis fii sangu bi ma gis man fii fii daal la yëfi yem léegi-léegi nit dalay oo ne la xanaa nag léegi li nga doon jàngale jeex na tàkk nag booboo ci desoon nga xool tey léegi léeg nit nga dem fenn mu jooy ne la bu fekkuloon du seen TV émission diine bii ma ci gis konoon man yàqu naa falay jaaree dootuma baax banaa lu bon ndax lii te émission bi ñu bari tuub nañu ci dugg ci lislaam ñu nekkuloon jullit am na ñu nekkoon jullit xamuñu woon seen diine ci lañ ko xamee am na ñoo xam ne mosuñu respecté julli mosuñ faale julli ci lañ respecté julli kon defe naa ñaari at yi bu ñu xaymaa muy sunu anniversaire ñu xayma danañ xam ndax jur na njëriñ wala jurul njëriñ vraiment ñun yëg nañ ne jur na njëriñ parce que écho yi ñuy jot téléphone yu ñuy jot biti réew partout kenn xamul nu mu toll defe naa keroog bi ñoo dem Saint-Louis ñu ooñu ba États-Unis ñaari ko téléphone ñii ooju Italie ñenn ñu ci ne programme pour bëggoon ñu dem ci seen réew kenn ku ma ci wax dama la demal nga gis bugaan nga waxtaan ak moom donc kon émission bi intéressé leen kon loolu bu at bu ñu amee ñaari at wax dëgg yàlla dañuy rémissier bugaan ñaanal ko moom mi yàlla jaarale télé bi ak rajo bi ci loxoom yàlla ba mu ko ci jaarlee may ko xel mu def émission bii tuddee ko seen diine nekk yee tur wa dana wuyu borom seen diine bi ñëpp xamee nañ ci seen diine kooku dañ ko ciy sant gërëm koo ay gërëm technicien yii mu ñu booleel muy tafsir maba madaani suñu monteur yi ak ñi nekk ci régie bi soxna Anta ak ñi mu fi nekkal ñoom papis vraiment ñu ndokkeel ñëpp rajo bi ndokkeel Sénégal yi yëpp ndokkeel adduna bi yëpp fu seen TV ne ci adduna bi ñu ngi leen di ndokkeel ci sunu ñaari atu liggéey ci sunu télévision bi nga xam ne am na deux ans defe naa résultat wu euh, seen TV nag ci ñaari at kese tele def na euh, cinquante ans te amul résultat bu mel ni bu fekkee dëgg-dëgg la rek dama ne résultat wu seen TV ci deux ans yi mu tele def na cent wala cinquante ans. te amul résultat bu mel ni ci wàllu diine télé la boo xam ne majeure partie ci nit ñi koo wax mu ne la ci seen TV laa xamee sama diine waxuma ñëpp de mais li ëpp koo ci dajeel mu ne la ci laa ko xamee koo wax mu ne la bu duloon pratique bi duma xam te aussi bii rek laa gis dangay dem fenn ñi may àndal wóor na leen ñi may déglu duñ ma bàyyi ma fenn da ngay wàcc fenn ma ma daani xale yu ndaw yu juddoogul yi paccantaani ñooy wër oto bi di xale yu seetaan tele amuloon bu njëkk film lañ daan seetaan ah ak mike xale yi mike yi lañ leen utaloon mike yi ngi pour booy yi la léegi seen mike mooy mooy seen mooy seen diine bi su jotee sët yi ñoo naan maam taalal télé bi ñu seetaan émission bi xale yi woo seen papa heure bi jot na ñu taal fees fa dell diine koy doog bu njëkk dañu jëlal xale yi utaleen mike yi ñoom ante ñu utal leen musique ñu bokk miim gi mik ak musique waaw yéen gal yi yéen a moomoon musique bi xale yi ñoomoon mik yi paa yee moomoon gàmmo yi guddi àjjuma yi nii lañ ko séddiloon bu guddi àjjuma jotee ñu jox ko paa yi théâtre yi maire nii lañ ko séddiloon léegi ñu dem a dem a dem seen TV di góor-góorlu ba initier loo xam ne su heure bi jotee xale yu tuuti yi dañuy dem man damay dem conférence ñu yenu ay xale di ma jox di ñu ne dañuy bëgg a photo ak man xale yu tuuti ant mënuñ wax bu baax amaguñu juróom benn at di intéressé wu ci diini ba ba yow mi koy def buñ la gisee daw laxasu la dangay gis ku taxaw di la xool ba mu yàgg muy jooy ne la tey man bu fekkoon du du seen TV man fi lay doxee alko ndax lu bon rek laa doon def mësumaa xam ne julli am na mësumaa julli mësumaa xam nu ñuy jullee bokkuloon ci sama programme benn jigéen buy jaay yor restaurant nee na ma koor laa daan gën a doxle mais yéen a tax ma arrêté ko keroog ba ma dégloo nga wax ci koor laa gëj jaay koor damay tëj xëdd laay jaay ndogu pare naa ci tëj sama li li seen TV liggéey bari na taxaw seetlu nag yàllaa ko santaane wa fi anfusikum afalaa tubsiruun yaa nee na màbba war ngay daw daw ba mu yàgg nag nga wéet yow rek ne waa man màbba li may daw lan laa càmbaraat li wees kon ko def at def ñaari at mu dajeeg bis bis sëñ mbàkke soxna loo dem wuy ji borom nga ubbi ci sa rajo muy sa sëriñ war nga càmbar sa ñaari at loo def mais am na ndam cent pour cent ça c'est sûr man du ma jay nit du ma neexal ni parce que fi may liggéey fayee koo ma dara kon war na maa mën a wax dëgg waaw war na maa mën a wax dëgg te maa ngi moom du ñu gisee wóor na leen yéen avant gàmmu Tiwaawan lañ gëj a gisee damay gis lii dëgg rek parce que maay génn di dem ci nit ñi waaw di jot écho yi yéen da ngeen di génn yéen di jot lu ne donc kon li li nga xam ne Sen TV liggéey na ko ci résultat tey buñ ko doon noteel mën naan jël ay points yu bëri ci wàllu diini parce que li mu ci réussir amul ku ko réussir ci wàllu diine donte nag ñëpp a ngi fi woon di liggéey ñëpp a ngi fi woon di doxal waaye méthode bi mu indi ak doxalin bi mu indi ak système bi mu indi ba jeg ante mi tey même bu du julliwul xam na luy julli même bu muuruwul xam na lu sharia wax même bu sanguwul xam na lu ñuy sangoo lépp xam na ko donc loolu lañuy ñuy doy émission te réussite bi pure rek mooy sa télévision heure diine jot xale ya doon seetaan mike diine ji di seen mike far janq ja doon dem ca musique ba far soppale ko dem ci diine ja paa ya moomoon guddi àjjuma ak maire ya moomoon théâtre wëlbatiku ci loolu kon kam moom loolu ñëpp war nañ koo njukkal damay wax ne man bu ma amoon alal damay fay buggaan man Iran xam naa li may wax parce que téléem bii ñi ci xam seen diine ak li mu liggéey ci diine ak li mu xettali ci doomu aadama ak li mu dugal ci nit ci lislaam defe naa ne boobu télévision jaadu nañu di ko fay man waxuma man ma ñu fay ma man su ma amoon maay fay buggaan parce que li mu liggéey bëri na ti télé yi ko maanaam ñi ñi mën a maye loolu may diine li may diine moo bëriwul parce que place yi mu may diine dafay palaasu xaalis xoolal heure heure tafsir xoolal heure boobu xoolal seen diine bi heure bi jeudi lañ koy teg ba jeudi delsi bis boo xëyee suba teel seetaan ko dem lu la rëccoon nga mën koo dabu bu ko defee ngay nafar di nafar ba jeudi bi passé soo demee ci net bi fekk ko fi nga jëlaat ko ñu jëlaat jeudi tegalaat la bind bu bees tàq nga toppaat ko tey jii sénégalais yi ñii dul sénégalais nekk bitim réew ba France ba Amérique ba Italie ba Espagne ba londre amul benn réew ba Chine amul ku la fa oo ne la ñun ñu ngi lay suivre nii franchement ñun ñi nekk bitim réew suñ buñ amuloon émission bi xamu fu ñu jëm ci la ñu suñu diine ci la ñu manee man gis naa ko ma ne benn maire bi keroog ñu ngi jëm jiwaalo ci yoon wi la ma oo téléphone am na téeméeri at nee na masuta julli xamul nu muy julli sangu farata xama ko keroog ci yoon wi la ma ne maa ngi doog a julli ci seen émission boobu ci laa ma ne sangu farata ci téeméeri at kooku bu dee woon safara la jëm mais kon xettali na nit ñu bari muy lu am solo ñun bu ñu bëggee jàngale te amuñu école buñ jàngale danañ jàngale suñ bëggee jàngale gi suñu élèves yuñ jàngale danañ jàngale kon bugaan moo ubbi école bi wut ay élèves yi sixième wut professeur bu xamul dara bu mel ni man ma ne fii nat nate rek di jéem waaw waaye sant nañu yàlla suñu sixième yi alhamdulilah ñeewu ñu ko dem bitim réew ñëw te li xam leer na naññi ti ñu ngi koy jëriñu donc loolu ñu ngi ci sant bugaan réew mi yëpp nag laay boole jël seen sant bitim réew yëpp boole seen cant ak seen ngërëm joxal leen ko bugaan xam naa ni ñëpp bég nañ ci moom parce que ku la may lu mel nii nga tëdd sa lal jaaxaan taal sa télé def nii ñu wal na ni ngay jullee ñu pare génne la farata yi la ca war ñu pare wala li ciy sunna ñu pare wala lay ngëneel pare wala la koy yàq walla nooy sangoo nooy tiimee luy waral tiim yépp nga xam ko jaaxaan ci salal te waroon a dem jàngi ko fay baa nga jël ustaat bu lay jàngal si nga di ko fay far nga jaaxaan bugaan di la ko jàngal fayoo daara nga xam sa diine sa jabar xam diineem sa doom xam diineem ti nga waroon fayal sa doom école ñu jàngi ko wutal sa jabar ku koy jàngal si ci kër gi ngeen bokkandoo jàng ngeen jaaxantaal seen télé xamandoo seen diine kooku da su ma ne la bu ma amoon fay ko war nga ko gëm waaye yow moom it soo amoon war nga koo fay war nga koo gëm ndax xam nga ci loo xam ne dañu wax ne man allamaka harfan waahidan foo mawlaak benn arab boo ko jàngalee anta alif alif kese la la maxtaar jàngal alif rek alif nga bàyyi daara ji jàngatoo maxtaaray sa sang waaw kon ki jàngal sa diine yëpp ba nga xam ko nag kon wax dëgg yàlla su dee ndam rek moom am na ko su dee résultat bu positif am na ko su dee réussite am na ko ci ci ñaari at yi deux ans yi nga jàngal ci am monde <laughs> bugaan am na ndam waaw deux ans nga jàngal ci monde lëmm te réew yi ma la damay jot seen téléphone réew yépp nga jàngal ci am monde lëmm ci ñaari at ñu xam seen diine man lépp lu leen diine sant ñu xam ko seen aj màkk nga wan leen ko seen tabaski nga wan leen ko si lu nga wan leen ko lu ci ne bugaan génne na ko ñu wan leen ko wan bu rafet loo réeree ci sa diine muy question yi ñu tontu la ko amul lenn lu mu bàyyi kon bu ñuy seet ndam ak réussite vraiment bu ñu doon jox bugaan di ko di ko defal mention defe naa ne dañ ko daan am nga cent pour san loolu moom lu wér la am na ko ci yàlla wér na am na ko ci yonent bi wér na parce que ñoom moom seen diine ñoom moom seen charia kon ki fexe ba nit ñi defar seen jikko même donte suñu mbokki chrétiens yi donte mbokkuñu diine dañuy dañ koy suivre man am naa ci xarit yu bëri ñu bari ñu may oo oh, man Iran chrétien laa mais sa émission du ma rëcc kon loolu nag wax dëgg yàlla ndam la nag ba nit bu defee njàmbaar dañ koy wax nit du def njàmbaar nga découragé loo ko man li ma gëm ku def lu baax ñu ne la waaw góor bugaan daal vraiment moom nga xama xamoo am nga mention très bien ci mbooleem adduna bi nag waxuma Sénégal monde bi yëpp waaye awlaa bi Sénégal Sénégal rawati fi nag bari na maire yu xamul daara paa yu xamul woon daara kalaasu antique yi xamuñu woon tous ñoom waxuma daara mais tous lañ xamuloon mais ñëpp tey macha allah ma daan ni mi sëriñ la ma ba mi day atte léeg-léeg ah, am nga ne ante ne na moom day atte mais léeg-léeg yéen ngeen di atte sax di di dem seen morom yi dina atte mais li ki liggéey loolu mais war nañ ko remercier ndam ci lii leneen newul ci leneen jubbanti nit ñi jëmee leen ci yàlla ba ñëpp d'accord ne dëgg la d'accord ne def nga ko loolooy ndam li waaw kon tey bu doon kursu ma ne la bugaan na nga ca kanam di dem bu doon kursu laa de bugaan nga ca kanam di dem sant yàlla rek man de damaa amagul su ma amoon émission bu ma def dinaa ko fay fay ko laa ji nga ni ngeen gisee sponsor yi fii eh, xaw ma publicité yi ñu fii def su ma amoon dama ne émission bu ma def fay ko te su ma amoon itam keneen doon def émission bu mel nii ma gis ko samay publicité fa laa koy dugal lépp lu may jaaylu di ko yëgle fa dara newu ci laa wax dara newu ci dugalal daraa ci nekk émission bi may def muy seen diine muy tafsir bi publicité bu ngeen am def leen ko ci dara newu ci dara ci newul lu ngeen di yëgle yëgle leen ko ci dara newu ci ku ko aayal yaa aay aayul maa la ne dara newu ci dagan na baax na jërëjëf bugaan sa ñaari at yëpp ndam la sa ñaari at yëpp réussite la am nga cent pour cent ci yàlla ak yonent bi am ko ci jullit yi yëpp ñëpp gërëm nañu sa télé bi ñëpp sant nañu ñëpp kontaan nañu parce man lii laa gëm daara laa yor maa ngi liggéey Sud FM ëpp na ñaar fukki at avant may ñëw fii ñaar fukki at ëpp na ko yekkiwuma fi maa ngi daara sëñ Babacar di jàngale ëpp na ñaar fukki at 10 octobre 90 ba léegi mais réussite bii buggaan am parce que lii moo ëpp moyen ñun fanuy nekk parce que bu dee ca daara ja nii la war ngay jàngal bu di lii àdduna ngay jàngal kon jërëjëf Bougane rajo bi tele bi am na ndam rajo bi am na ndam journaliste yi am ngeen ndam yéen ñëpp ñu ngi leen di encouragé di leen sant di leen gërëm bii daal moom rocc nga cim ngeer moom waaw macha allahu alhamdulilah deux ans yoo xam ne awartewul yàquwul ndamu kese la kon Bougane cent pour cent asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu bismillahi rahmani rahim قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد